booy bopp yaa booy dara nekku ci nag. ñaar bu ma waxaat bopp yaa booy. sama mag la baal ko tay ko. mais yéen da ngeen a dof wala mooy seen problème. ah du fee doo ko am du ma koy. mais ñii ngeen a dof yéen. waaw baal ñu. sëñ bi baal. maa ngi jéem mais xanaa gisoo lu ñu def sama nii pour lan.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 76 98 76 532 64 17 Ndiaye Global Business mbégte kese la asalaamaaleykum mbokki internautes yi di leen nuy bu baax di leen ziar den bëggee ñu ñuy suivre ah, ah, Kewel Info 4 ah, appuis ak Leewtoo TV tey nag ñu ñëw fii si Grand Yoff ci écurie bi nga xamante ni tey Zarko lañ seet si gannaaw ba mu war ak ki nga xamante ne moom mooy bàyyi ma Mandione euh, ci combat moo gën avancé tey nag ñu fas yéene waxtaan ak moom mais waxtaan bi tamit du ma ci wet ma seq ko ki nga xam te sama consœur suma xarit muy Ndeye Mbacke ñu fas yéene waxtaan ak ki nga xam moom mooy Zarko ci combat ak Baye dañ koy bàyyi mu nuyoo waaw ñu ngi lay fay di kontaan seen seen teewaay bu baax a baax euh, di nuyu seen auditeurs ak auditrices yëpp di kontaan seen teewlu ak ni ngeen di taxaw Zarko ci làmb ji mu jublu ñu ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin di ci woo l' ensemble zone 7B de Grand Yoff rawatina toutes les autorités de Grand Yoff ñoom Boubacar Camara ñoom Khalifa Sall ñoom Modiob le maire ñoom Madame ñoom Cheikh baaxum ñoom Laay Banana ñoom Yves Baraay Yves Baraay gaa yëpp ñu kenn euh, surtout aussi euh, ñoom Adama fay di woo aussi l' ensemble zone 7B de Grand Yoff képp ku yeewoo Grand Yoff rek képp kuy yeewoo zone 7B ñu ngi lay woo suba euh, suñu open press mercredi di xaar di ci xaar l' ensemble zone 7B ñëpp bàyyiwuñu kenn ah waa Liberté 6 waa euh, Liberté 1 ba 6 ñëpp bàyyiwuñu kenn xaar yàlla waa Jëppal Médina ñu ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi woo ñëpp ñu ñëw assister ci open press bi ñu ngi koy defee fii Adrien Senghor lamb séeréer di ci xaar grand yëpp di wow sama mbokku njaago yi sama mbokku xaalpulaar yi bàyyiwuñu kenn ah onon bandiraɓe haalpulaar en min heeɓi combat oɗo dimanche garowo ñama ñaganemen allah dokka men victoire welɗo e dow baye ma joni inchallah rabbi hmm. nuyoo bi am na solo mais sa combat ak baye ma ñoon ñu gis ne ñu bari dañoo yaakaaroon doo génn hmm. ñu jekki te gis ko mu jël vol dem France hmm. ñi ne Baye Mandione moo tax muy préparé combat bi ñu ne euh, voyage am la doon kii pour euh, visa France bi mu am day doon dem pour confirmer pour dem ñëwaat non nekkuloon loolu sax du Baye Mandione dafa bokk ci yoon bi rek ñun li ñuy li ñuy entraîné du pour Baye ñun suñu vis man boog man Zarko sama vision roi des arènes la pas Baye Mandione kese Baye Mandione dafa bokk ci yoon bi rek mais sama vision lu tax ma dellu siwaat ci làmb roi des arènes la pas Baye Mandione si. kon euh, voyage bi séjour yi gis nañ ni yàggoo fa. lan nga fa doon entraîné da nga wala dafa am leneen loo tax moo taxoon nga def am loo waroon a moo tax. non daa am liggéey bu ñu commencé woon rek ñu commencé ko si suñu combat euh, comment dirais euh, mbay guy gi donc loolu lañ demoon eggali rek point yooyu lañ demoon eggali te bi mu jotee pour ñu dellu si dellu si waat nañu. Euh. salaamaaleykum di leen nuyu bu baax a baax ah. ñi nga xamante ne nii ñu ngi ñuy topp ci. Leewtoo TV waaye dañu topp ci Kewel Info waaye dañu topp ci 4appuis di leen bëggee bu baax a baax comme ni ñu koy defee bu làmb jubsee dañuy dem topp acteur làmb ja waaye comme li ko Fatma ja waxee topp action bi na muy demee préparation combat ba mbër bi avant pendant ak après combat bi ñu jëm nag ci nga xam ne mooy combat bu rëy la 15 diggante Zarko ak Baye Mandione ñu nuyu Zarko comme nuyoo na waxtaan ak moom ci lan lay préparé combat waaye jour ji lan lay indi adversaire am wala lan lay préparé ñi nga xam ne ñooy supporter am Zarko nga tukki jee lan nga doon liggéey waaw mais li ma liggéey moom moo dëgg yàlla gars yi dañ koy denc. dañ koy denc bu tuuti secret la quoi nekkul loo xamante ne xam nga bëggoon mun nañ ko médiatiser nii suñu adversaire yi yëg ko. mais incha allah rabi le 15 dinañ leen ko confirmer dinañ dinañ leen xamal ne ñun ñii dem nañ liggéey te fi ñu demoon du caaxaan moo ñu fa yóbbu liggéey moo ñu fa yóbbu te incha allah rabi dinañ leen ko wan di di ci di ci sant bu baax a baax ñi nga xamante ni moom ñoom laa nekkaloon au Paris. Euh, muy Ndeye Marème euh, ak jëkkër ji Sadam ñu ngi leen di sant bu baax a baax ñoom Laurent ñoom euh, Babacar Babacar Resto ñoom nu mu tuddati ñoom Ousain ñoom ñoom Babs gaa yëpp maa ngi leen ci ñi nga xamante ni ñu ngi woon Paris ñëpp maa ngi leen ci sant bu baax a baax di leen ci gërëm parce que taxaw nañ ma seetaan nañ ma benn yoon ñoom Momar ñoom comment dirais-je Mëgëy ñoom Mëgëy surtout Bouba jaawo sama doom buuba jaawo ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn daal ñoom moomoo ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi leen di sant bu baax a baax si nit ñu taxawoo biir Paris te ñoom ci seen bopp man ak ñoom ñoo doon nekk euh, séjour bi yëpp ñoo doon nekk ñoom xam nañ ni man liggéey naa te man it xam naa ni liggéey naa te incha allah bàyyi ma ñoon dimanche dina xam ne Zarko mii liggéeyi woon na euh, bu neexee yàlla ndam li fii lañ koy indi Grand Yoff nee na boobaa bàyyi ma ñëw dina xam ne Zarko liggéey mais ñi gis si seeni i face to face wala ñi gis si ay kaddu Zarko ñi gis da nga ñeme bàyyi ma ñëw de trop lan lan dee wala lan la. non ma dara dama xam ne bàyyi ma maa gën a capable maa gën a capable maa gën a coupable bokkul sax yee bàyyi ma ñëw gay gaynde la nag gaynde la moom mais gaynde gu màgget la waaw. gaynde gu màgget la non. gis nañu dara. man dama xoyantaan yow man mooy dëkk bi doomu Grand man gis naa ay junni xoyantaan si kaw jaani ñàngul la day ëf rek. maanaam ma jox bi kuy bëreeg nit di nga xool faiblesse am wala nga xool ay fooram xam nga gis si fooru Baye Mandione yow. maa ngi koy seetaan maa ngi seetaan faiblesse am maa ngi seetaan fooram maa ngi seetaan léppam man ma waxoon mbéy mi laay waxaat man bépp mbër bu may jël dama lay étudier maa ngi seetaan sa lépp ba pare jox ay tubaab ñu xool la ne ma kii fii nga koy jaar nii nga koy def. si dañ koy def. yee man dama koy def de man ku ko deful man man eh, man. man boobu professionnel laa quoi man moom laa def sama bopp xaw ma ñeneen mais man moom laa def sama bopp. si ah. Zarko euh, Ndeye Mbacke wax na ko dañoo dégg say kàllaam ndax gis nañu ma joon mbër la boo xamante ni ku am fit la du anière te dégg nañ ko mu wax ko mais dañoo dégg say kàllaama nga ne mbër bu loo daan mbër boobu noonu yéen ñaar doo leen yàgg. lan moo tax nga wax loolu ñu bari ne ba ngay wax ton boobu noonu. Mhm. am ñu ne est-ce que nekkul ni euh, revanche bi gars yi doon wax ndax combat Modou Lo ba muy bëre ak Baye Mandione boobu yéen ñaar yéen a ànd lan moo tax nga wax loolu loolu taxul moo xoolee taxul moo lu mu bëre moom de. Ah. loolu de. Ah. lan moo tax non gëm sama bopp. Ah. man Modou Lo yàgg nañu entraîné roog énergie. Mm. mais damay ñëw ne ko tey dama lay daan mu neex ko mu naqar ko te dama koy daan <laughs> man dama gëm sama bopp fan ma man gëmuma ay Balla Gaye nii ay Modou ay Eumeu Sène de barke Serigne Touba moo tax uduma ci xarit ak kenn ñoddu ma ci xarit ak kenn parce que dama gëm sama bopp man mënu ma entraîner ak nit ay at te du ma am loo xamante ni dama koy dencal sama bopp pour saa ñu tasee mbapat wala saa saa ñu tasee làmb dama lay daan loolu yàlla da ko def ci man si foofu kese laa ko waxee mais du question que li mu bëreeg moom wala lu mu bëreeg keneen non non non non. anyway dañuy dégg chaque jour nga ni man dama mën a bëre. kenn dàqu maa bëre. si Sénégal te Baye Mandione waa ci Sénégal. Mm. ñu gis ni Baye Mandione nag wax dëgg yàlla moom tamit bëre garda malgré nag wax dëgg yàlla am na ay difficulté ay kii yu tuuti yoo xam te ni du ko xaw a pénaliser mais lan moo tax ngay insister dama mën a bëre kenn dàqu maa bëre Sénégal. non mais catégorie bëre bi du benn man ak Baye Mandione suñu catégorie dañoo bokk école rek mais bokkuñu classe. da nga jàpp ne yaa ko dàq. non ku dul moom sax da nga jàpp ne yaa dàq. non déggoo ma ne wax ma la bàyyi ma de kurul moom. keneen ak keneen. ñooñu nekk ci ginnaawam ñëpp mën naa leen téye di leen jàngal bëre. barke Serigne Touba billaay walaay taalaay. mais Zarko si dèjà maa ngi lay nuyu. dama ñëwaat tuuti si wax bi Fatma wax léegi dama la nga ne Modou Lo mbër bu malmené yow boo ko jàppee da nga koy duma. wax boobu laa bëgg mbër bu bëreeg Modou Lo. waaw Modou Lo téye la malmené la. yaa xam nga daan ko wala moom mu daan la man bu ma la téye dama lay caw dama lay duma du may metti loolu fan nga ko teg si bëre gi bëre moo tax nga laa la wax ci bëre ak xeex parce que ñun Rock Énergie dañu doon dañu doon tëj. Hmm. dañu doon eh, per Birame Ngingue daf ñu doon tëj si néeg ñun juróomi ay juróom ponkal. Hmm. dañu doon tëj si néeg ñun ñëpp ñu jox ñu ay gants tëj ay góoru kese tëj amul yuux amul yaay amul dara. waaw tëj ñuy dóorante. barke Serigne Touba laaj leen ko ñoom xam nañ loolu. yow bi man Modou Lo Pythagore Baye Pël. Laay Pythagore si la bokkoon Baye Pël ak euh, Yaaram Guèye Yaaram Guèye boobu Nicolas tamit mu ngi foon ak nikola ak Modou Barok Junior si loxo tax gan doorante boxe ba kenn xaddi keneen ñëw non amul wayaayoo moom kay ay bëñu wàcc ak ay bëñu toj dafa leer te te man ak Modou kese day metti du ma ko dara <laughs> dafa leer dañu gis Baye Mandione eh. bëri na hmm. gis ci ay faa yu def ba tax ba waral nga wax loolu non ba ma ñëw moom ci faay la dëkk ci la yaru dafa ci faay la dëkk. ci la ci la màggee ci la yaroo. moom lépp am faay la. ay combat ay. non rek lay def. def ko yàgg na ko lonk da koy lonk da koy yóbbu. man loolu laa koy ñaanal mu changé am jàppale am ginnaaw. ba pour bu ma ko daanee incha allah bu bu mu taxaw naan appareil ma woon. loolu laa bëgg de. mu pare man bëgguma bëre ku pareegul. moom na pare rek bo ma téye ko. loolu laa bëgg. nga ne Baye Mandione na pare ba nga téye ko ñu gis benn changement ci sa adversaire bu njëkk ba ñu naan Baye Mandione mu ne ñu ne gëmul lu bari wala gëmul ay mystique te dañoo gis Baye Mandione bii ñëwaat dafa changé catégoriquement est-ce que loolu yaa ngi koy bàyyi xel bu baax a baax. mais xam nga yéen da ngeen mën a nu Baye Mandione Baye léegi léegi du ngeen wax Zarko changement bi mu def. ak ak liggéey bi man moo ma ëppal intérêt mais Baye Mandione moom dimanche bu neexee yàlla incha allah làmb kese ci làmb rek la ñuy wax gannaaw bu ñu yàlla mayee wér ak wér la ba ñu fekkee foofu ba ñu fekkee ko man maa koy daan. foo ko dàq bëre maa gën nekk xale ëpp ko doole. maa ko dàq bëre maa gën xale maa ko doole. yàlla rek nag moo am doole mais maa ko ëpp kàttan fuuf yamuñu sax man li may sëfoo moom du ko sëfoo bokkul kon kooku duma ma guddeel moom kay sarax ndongo rek wala mu jël dooleem kese amul leneen. wala mu jëlee dóoram ñuy xaar jour combat boobu ci ay supporters ñi nga xam te ne ñooy safoo ki nga xam ne mooy Zarko lan nga leen di indi jour boobu. non man samay supporters xam nañ ñun xamuñu violence gars yi dañuy sañse di xeeñ lu rafet nekk ci kaw mu leen di bégal ñuy kontaan seen xol di féex. billaahi ñoom ci kaw dañ koy gérer billaahi bu ñuy ñibbi dafa leer dañuy dox ba egg si ñoo ko moom suñu yëf la. mu yow mos nga gis si àdduna mbër bu diriger Zarko. Baye Mandione kenn du ko diriger. mais kan. Baye Mandione kenn du ko diriger. Zarko. te musul anière. Zarko. jeex na te man dama koy diriger. runkum daje. non duñ duñu daje Baye Mandione man maa koy songu. maa koy songu maa koy dóor maa koy daan. lu leer lu mel ni mit laa lay wax. maay jël drapeau bi maa koy indi xam nga looloo tax signature ma doon kaas naan nañ ñu jox drapeau kii nu mu tuddati ministre boobu di maye xaalis rek. <laughs> ministre sport bi. Matar Ba eh. moo tax ma ne ñu tuddee drapeau Matar Ba Matar Ba ñëwal fii jàppale ñu ñëwal gën a xaaj def ko ci écrit graaf ñun tamit soxla nañ ko ni nga koy defalee waa Pikine di ko defal waa Géejawaay ñëwal defal di ko defal waa Fass ñëwal defal ko écrit graaf mbooloo soxla nañu ko ñun tamit yee parce que ñun tamit xam nga da ngeen ñu war a nuñ koy waxatee eh, gëstu di ñu di ñu dédommagé kii nuñ koy waxee mairie ni ñuy def social el ñëw fii jox ñu ci affaire yi ñu téye kan si mun na am bu baa ma ñoon dëggalee boppam rek bëgg xeex wallaay ma kaw ko lu leer laa lay wax booy ko miin woni baakan saa jagi mi jagat saa jagaani mi jagat saa ari mi arat saa araani mi arat non dafa leer saa anda ko kaalata yoo xeewat ko ndejjuɗa sabu demgal na lepta jom lu mel ni mbiri laa la wax man ngay waxal de doomu dëkk bi ragaluma loolu Zarko ñi gis nga dellu si waat waaye indi état de xam ne dafa explosif ku gis mais déggoo lu ma wax sànq c'est parce que eh, du bàyyi ma ñoon kese la visée du te na non wax sax mais dinaa ko wax lamb simple yi xaar leen ma de <laughs> simple yi luur yi non nañ ma xaar. lu leer laa la wax. non ñoom ñëpp dem leen di ñaawee. mais kon soo bëree dootuma leen may dara bu làmb ji jàllee. soo bëree pare la euh, waa. déggoo ma de déggoo ma de luñ fa teg damay dem man ma mafia orlu bi ñooy ànd. bul sonn dañuy dem rek toog teg suñu ay bagage xoola di xaar arbitre sifflé. billaay wallaay amatul xaar. lan moo war a boobu la changement ñi gis mbëri bu ñu demee ba am yenn turi ci làmb ji wala bu ñu toll ci làmb ji dootuñu nangootu bëri lu simple lan moo war a Zarko bëgg a delluwaat bëri lu parce que xam lan moo tax. Euh, man dama nekkoon benn nit boo xamante ni eh, làmb dama ko jëloon daf ko daf ko liggéey mu nekk xam nga xa mooy li ñuy wax rek nga nekk xale def benn sport liggéey nga ciy xeex di sa xar sa tànk tubéy di di xool yow ngay xool sa morom yëpp majeure partie bi dañuy dem ñii di am ay gel ñii di dem baal yi ñii di def lu leen neex yow ngooy dem di entraîner di ñëw di tëdd nelaw comprendre nga nga koy def pendant des années di ko def di ko def di ko def amoo ci benn suite amoo kenn ku la ci jàppale comprendre nga day dem ba dalay metti quoi mu loolu moo taxoon ma reculer dem dem seeti ji leneen mais man ma dëggal sama bopp rek di entraîner concentré wu entraîner sama xel bi dara nekk ci lu dul entraîner pour prouver ci làmb ma téye kirtim roi des arènes comme naan ndox c'est le cadet de mes soucis parce que ñi ci nekk maa gën a capable gën leen coupable dàq leen bëre dàq leen xeex commencé ko ci Tyson bi bàyyi wala Yékini bi bàyyi ba ci yaaw a jaal mm-hmm. barke Serigne Touba ñoom ñëpp maa leen dàq bëre dàq leen xeex waaw Zarko sa combat bi passé ah, ah fi may sa combat bi passé dañoo déggoon nga ni sa combat ak Mbaye Gouye demoo ci sëriñ loolu nga wax ni nga demoo ci benn sëriñ. benn sëriñ rek laa seeti. waaw nga seeti muy waa léegi combat bi est-ce que mën nañoo xaar tamit nag comme que ki ngay bëreel dafa soxor. muy bàyyi ma joon waaw est-ce que mën nañoo. xaar moo tax loxo yi ba du jóg. ah demoo ci sëriñ. moo moo dama ko tax de tax naa ko dem naa ci sëriñ yëpp ci njaago yeeg cubalo yeeg ñëpp laa dem séeréer si. non baa ma ñoon ki mooy buddu bi kii foog nga liggéey ko foog nga dem ci sëriñ déggoo man nag li ma yoroon yëpp def naa ko ci combat bi yoratuma dërëm billaahi di xaar soutien wu autorité grand fi yëpp ñoom Boubacar Camara ñoom euh, euh, Cheikh Bakhoum ñoom euh, Khalifa Sall ñoom Modiob le maire ñoom Adama fay ah grand yëpp maa ngi xaar seen seen soutien ñu ñëw jàpp ci combat bi parce que supporters yi bëgg nañu dem te bëgg nañu ay billets bëgg nañu ay t-shirt bëgg nañu regroupement bëgg nañu togg bëgg nañu def lépp kon ñu ngi ciy xaar ñëpp ñoom ñëpp parce que ñi nga xamante ne ñooy ñooy seetaan si Zarko ak ñi koy supporter am na ci ñoo xam ne dañu bëgg Khalifa Sall am na ci ñoo xam ne dañu bëgg Boubacar Camara kon donc ñoom dañ ci war a mu neex leen mu naqari leen dañ ci war a participer que ay doomu Grand Yoff lañu aussi. ñaata minute nga bëri amul minute. non amul minute man na arbitre sifflé rek man bu arbitre sifflé maa ngi sa kaw si amul sax xalaat. Uh-huh. mu gét dégg ñu ne combat bi euh, combat bi lu ñu si gagné yëpp euh, dañ koy jox ñi nga xamante ni ah, ñoom ñooy néew di doole yi mm. acte boobu nan nga ko gisee ak tamit euh, tey ban message ngay ngay lancé en tant que mbër gis nañ fan yi violence bi bari na macha allah ak tamit ñuy rey yeeg yooyu noonu ban message. non man moom wax dëgg yàlla xanaa xamoo ni li may dégg nii Sénégal dama metti na ma benn côté. benn côté aussi tamit li ma li ma toog xaw man dama nekk nit koo xamante ni ambassadeur Grand Yoff laa man dama bëgg Grand gis nga li ngay dégg Sénégal tey bu doon Grand kon àddina bi ñëpp a ngi koy wax kon àddina bi ñëpp média bi foo tourné ñu ngi koy wax Grand Yoff baaxul Grand Yoff agressé Grand sàcc Grand Yoff rey nit mais kañ nga gëj a dégg crime wala sàcc wala agresseur wala dara biir Grand yàgg na mais yaa ngi koy dégg feneen ci àddina bi yaa koy dégg fu nekk ci Sénégal mais déggoo kenn ku ko médiatiser kon waa Grand Yoff maa ngi leen di wax gàcce ngaalaama fi ñu teg suñu tànk nañ ko gën a nañ ko gën a teg yooyu noonu ñu ñuy séentu nañ ñuy séentu ci gaalu xaj mais bu ñu ci fekk mukk ñuy lekk te duñ ñu ci mës a fekk parce que Grand ay noble ñoo fi dëkk ay noble ay nante ñoo fi dëkk ñun dëkkuñu dëkkuñu banlieue ñun town lañ dëkk Grand bokkul ci banlieue foog jeunesse su Grand bi xam loolu ñun ci town la ñu bokk centre ville la la ñu dëkk ci digg ñàngatang bi yaa ngi comprendre. kon euh, ñi ngi ñi ngi ñaawlu ñi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi di rey ay doomu aadama nit dafa sacré nit danga koy respecté ak suñu raq yi nga xamante ni ñi ngi nekk bitim réew di leen sensibiliser nañu nañu gëm seen bopp xaalis jarul yenn yi xaalis bi gën a neex mooy xaalis boo xam ne da nga ko ñàq ñu dóor la ba sa bët patt sax wala sa bëñ damm sax nga mu lew la nga ñëw jëriñoo ko may teral sa yaay teral say xarit moo ëpp njëriñ surtout jigéen jigéen dafa nekk loo xamante ni dafa foor parce que jigéen mooy jur président jigéen mooy jur wàlliw ñi nga nit ñu fi baax yëpp jigéen leen jur kon jigéen ñi li laa war a suuli gën leen fonk seen bopp xam seen valeur jigéen lu mu tuuti tuuti magasin la parce que ku baax ci àdd ci àddina ku baax ci dëkk bi jigéen a ko jur kon ñoom bu ñu nangu yenn yi quoi wax dëgg yàlla yee ah, hmm. waaw li ñu tàggatoo rek mooy di wax l'ensemble zone 7B encore une fois de grève Euh, ak gars yi nekk Paris ak euh, les jeunes jeunes doomu grand fi nga xamante ni ñu ngi Paris ah ñëpp bàyyiwuñu kenn ñi nga xamante ni ñi ngi Paris ñi ngi Espagne ñi ngi euh, Amérique ñoom moo sow xam nga ñoom Kounda ñoom Mëgëy ñoom Jibi ñoom Sadam ah ñoom Bouba Diawo ñoom Seck gars yëpp ñu ngi leen di woo xam nga ñu ñëw jàpp Seck Mal ñëpp ñu ngi leen di woo ñëw jàpp ci bagage yi <laughs> comprendre nga ah, ñu kenn daal rawatina nag waa écurie Grand Yoff mbooloo mbëri mbëri ñu ngi kontaan ci ñoom bu baax a baax di di sant mbëru Grand mbooloo yëpp commencé ku ci gën a ndaw ba ci ku ci gën a mag ñu lim tur nag mais bépp mbër wala bépp sportif bu am écurie écurie bu am licence écurie Grand Yoff ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm rawatina dirigeant yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di di leen gërëm kontaan ci dirigeant yëpp duñu lim tur nag dirigeant yëpp kontaan nañ ci ñoom di sant aussi tamit euh, fans club Zarko bi nga xamante ni Baye Guilé moo ko jiite mu ngi def liggéey bu am solo di leen wax ni jour open press bi Baye Guilé dina fa jaay ay carte membre te nit nag balaa nga koy mën a ñaax balaa nga koy gën a mën a wax nga am loo xamante ni dalay day dalay dala cër boo xam ne dala koy delloo ñu dem jël carte membre yi xam nga mën a wax fépp fu ñuy waxee ci mbër bi nga mën a taxaw wax fa te kenn du ko dindi loolu la ñuy yóbbante fan si club beeg ñëpp kontaan ci ñëpp bàyyiwuñu kenn di gërëm grand Yves Braya ak grand Félix borom tàndeem Félix Gomis ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm bàyyiwuñu kenn ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen sant yéen aussi tamit seen disponibilité. Seexu gasama Seexu Kuyaate ñëw leen jàpp ci affaire yi gayeen wala boog doomu grand fi ah ñëw leen fii ci dëkk bi ñoom euh, Moussa Moussa Konaté. ñoo leen jàpp ci affaire yi ay doomu Grand Yoff ngeen wala boog bu leen xaar ñu leen woo Moussa Koné ñoo leen jàpp ci bagage yi ngeen wala vive Grand Yoff. booy bopp yaa booy ci nag. ñaar bu ma waxaan bopp yaa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 une société purement sénégalaise. Ndiaye Global Business xarañ loolu ci seen métier.